salaamaaleykum ñu leen di nuyu di leen ziar di leen béggee bu baax a je vous retrouve encore une fois sur votre chaîne à 2 s Pro continuez leen di abonné ngeen bës cloche de notification bi su ko defee bépp vidéo bu ñu dugal ngeen ko am à temps réel te ngeen di like vidéo yi maanaam da ngeen di bës fi baaraam bi nekk su ko defee ngeen koy partagé tamit ndax waxtaan yi ñuy def ak yéen mën ba ñëpp mën ci jot nous avons euh, la fameuse confrontation bi nga été le 6 décembre Nous avons ba dossier Macky Sall Ousmane Sonko j'ai l'habitude de dire que le dossier boobu noonu jarul ñu un dossier Adji Ousmane Sonko parce que c'est une marionnette Il est xale la vulnérable pauvre issu d'une famille très pauvre moom lañ tombeeg mu nekk xale amul kilifa da doon a ay yu au sommet de l'État bëgg éliminer benn adversaire politique jaarale ko ci moom utiliser pare à l'occurrence Mamour Diallo nga xam ne heure dans un vrai état de droit bu fekkoon Sénégal justice bu tax justice ku noonu Mamour Diallo instant bi du taxawaalu ci mbedd di vaquer à ses occupations rawatina nag mu ne dafay dem sax di nekk directeur u ONAS kon loolu Sénégal rek la mën a amee ak réew yu mel ni Sénégal waaye réew yu normal yi tax ñu naan réew ku mel ni Mamour Diallo nekk un délinquant économique nekk un délinquant sexuel du taxawaalu ci mbedd donc dossier Bobu, dossier bi dafa leer ne complot la Sénégalais yi àtteel nañ ko seen bopp mu justice populaire comme nous bu njëkk ba waa dafa demoon ba bew ba yëg boppam bi ko nguur gi mu ne am adversaire politique da nga pour am ambition présidentielle rek quoi jaarale ko ci justice mu def ko Khalifa Sall def ko Karim Wade affaire bi réussir mu yomb lool kenn bougéwul loolu nag gën ko bewloo mu jàpp ne moom kenn waru fee am ambition kenn warta yëngatu def ci bopp bi tamit ne war na fee toog ba dee ci nguur gi moo ko ay xaritam dinos ku yëngatu critiquer mu jàpp la tëj avec la complicité de la justice ba tey Voilà de ses juges parce que dafa am ay juges am spécial justice yaatu na am na des juges intègres des magistrats intègres qui sont de très bonne foi qui sont pieux waaye ñooñu soxlawu leen du leen parce que c'est lui qui préside le conseil supérieur de la magistrature le ministre de la justice am dañuy tànn mbalit yi nekk ci biir justice les pourritures

jaam la parce que nit ku gore dëgg bu la sénégalais yi euh, amee lu ñu la lebal muy fi sénégalais yi jaareek moom da ngeen war a fay delloo leen njukkal waaye nag moom dafa ñëw ñu jël ab Ablaye Wade ne ko soxla soxlawuñ la ci troisième mandat Ablaye Wade mi ko yar ci wàllu politique teg ko moom à la place de Abdoulaye Wade Falco à 65 malheureusement a mu de mu comme les sénégalais yi bëgg nañ au détriment de Wade moom war na a fait ba ci comme nous ko ba di sénégalais di di utiliser police ak gendarmerie ak justice té ñoñu ko impunité bi mu doon xex dont il est victime ak népotisme bi mu ñëw gën ko may doole gën ko jëmmal ku bokk ci moom lépp loo def dara du la ci fekk ku bokkul ci moom boo defee boo deful yëpp dina fexe ba teg la loxo boo ko contré lenn daal laa xam ne boo ko defee dina la may jàmm mooy moom moom boo àndut ak moom it bu ko critiquer bul dugg ci géewu politique bi bul am ambition yow toogal rek nga noppi su boobaa dina la may jàmm boo àndeek moom tamit kazalika ko noonu toppal ci gannaawam nangoo nekk dunguru nekkal suq bu tisoolee nga ne ko yarhamukallah lu mu def nga ne baax na lu muy waaj a def nga ne ko baax na su boobaa dina la jox ay poste jox la ay privilège loo bëgg mën na la ko defal waaye daal yow bul am benn ambition boo amee ambition mu dagg sa bopp ak loo ko jege-jege ak lu ngeen yàgg-yàgg ak loo ko dimbal dimbale kon booy wër baadoola ak koo xam ne gorewul boo ñëwee ci Macky Sall rek bu eboo yow nga taxaw foofu noonu xam ne yegg si nga donc bi mu egsee ci président son ko fekk amul fenn fu mu ko jaar parce que président Ousmane Sonko jaar na impôt et domaine def fa 15 ans sant trace macha allah nekk nit ku jub xam ngeen ne soxor mënta weesu nit koo xamante nii bi jàng jotee. dafa jàng jaar ci école publique bi di ñafe ay parents am encadré ko ba mu àgg université def concours ENA admis bokk ci les meilleurs ci majoram génn nekk inspecteur des impôts et domaines yore njaboot yore yaay yore ay soxna yore ay doom yore ay frère ak ay sœur bokk ci ñi nga xam ne ñoo tane ci fameem nga jël ko dàq ko ci réew bu ñuy wax ne réewu démocratie la liberté d'expression dafa war a am ci wax xalaatam ci malversation yi nga xam ne ñu ngi ko doon def ak seen njuuj njaaj yi nga xam ne moom lañ nekkee woon mu ko doon dénoncé mun na da koy dàq jamono jooju nag xeeb na ko jàpp na bu ko dàqee dina tal leneen lu dul nekk fii di dénoncé dégg naa woyu bu bon boobu noonu borom xool bu bon bi saay-saay bi noonu yonent bi mu safaa Diakhaté seytaane bi mu zabze bin bi dégg naa moo ko conseillé woon loolu ne ko kii da koy dàq boo ko dàqee dina tal leneen lu dul nekk fii naan dey dénoncé ñi ñoo yées ñi ñoo bon waaye lépp lu ñaaw luñ mës a def ci àdduna dina këpp ci seen kaw dinañ alaku digg bëccëg dinañ torox digg bëccëg te commencé na sax parce que torox mënta weesu nga jiite ay nit defuñ la nawle bëggatuñ la la ngay forcer parce que yaa état donc muy dem di dem di dem waa participer ci élection yi fekk boobu indi parrainage waaye dafa ne euh, waa ji daal du dara bu bokkee ci élection yi tamit du ko teree jàll quoi te ndaare lay jël loolu comme éliminé woon Khalifa Sall ak Karim Wade ñooñu la ragaloon ci jamono jooju quoi parce que moom xam na boppam xam nga luy alxuraan di wax ne balul insaanu ala nafsihi basiran ni ku nekk yow yaa gën a xam sa bopp moom xam na ne moom il a été élu par défaut maanaam président par défaut la loolu moo tax nag deuxième mandat bi mu jubsee mu fexe ba éliminer Karim Wade ak Khalifa Sall utiliser justice parce que xam na boppam il n'est pas populaire du nitu dara xam nga lu ñuy wax naan Euh, daf cee dal comme ni ngay xale di waxee daf cee dal rek mu xam ne moom en personne moom bu demee élection moom mënul gagné dañ koy duma mu am benn mandat sa fa lay yem mu tombeek nag mu nekk baadoo la léegi mu bàyyi Ousmane Sonko bokk parce que defoon na ay pexem indi parrainage am éliminer Khalifa Sall éliminer Karim Wade jaarale ko ci justice comme ni ma ko waxee mais bu ko wóoroon ne Ousmane Sonko day jël troisième Ousmane Sonko du jàll mu ay candidats yam teg ak Idrissa Seck deal ne ko yaay jël deuxième après bu ñu paree nga rejoindre ma jël ma dikkee ñaa jàllale ko jàllale Cheikh Issa Sall ba tey mu ngi xép Ousmane Sonko Ousmane Sonko ñëw jël troisième te bu élection yi jaaroon yoon daf ko bett nag bu jaaroon yoon Ousmane Sonko ñoom ñaar ñooy dem deuxième tour à l'issue des élections Idriss Seck dem fekk ji ko bi mu koy fekk ji mu 15 mois ñom ñaar ñu doon waxtaan ci gannaaw te loolu 15 mois yi boo calculer fekk na boobu <laughs> élection yi maanaam <laughs> ñu ngi ci woon euh, excès guñ fa woon kon loolu Ousmane Sonko di gën a am ascension di gën a dem léegi nag mu commencé ut ay pexeem fu nekk mu pour Ousmane Sonko na leen man de impôt et domaine jaar naa fa def fa 15 ans waaye su ngeen xamee ay terrain yoo xam ne di ay suuf yu ma moom te jaarul yoon wala xaalis bu ngeen fekk ci banque ñu ne Ousmane Sonko moo ko moom te jaarul yoon ñëw leen ngeen jàpp si ma ñu wër a wër a a wër ba sonn gisuñu dara. léegi nag benn xale bu ñuy wax euh, Sidi Ahmed mbay xam Adji Sarr tombeeg Ousmane Sonko da doon dem foofu di maase wu ji te am ci droit lool parce que vie privée am la yoonu kenn nekku ci. waaw ñun tànnuñ yonentu tànnuñ imam tànnuñ sëriñ président la ñuy tànn nit ku nekk boo wéetee li ngay def yoonu kenn nekk te dara yóbbu ko foon lu dul lu baax ku nekk nag mu ngi ciy nekk di interpréter di wax ay waxam yi ñaaw ay lu tax demul ci kineeg seen yoon nekku ci ay dem ci kineeg ñàkk dem ci kineeg buy dem ci kineeg yéen du yéen yéen a ko koy wax seen yoon nekku ci man mii bu ma amoon lu may métti du yéen yéen a may wax na si kiné kinésithérapeute nga war a dem wala feneen ak feneen seen yoon nekku ci ñu jiiñ ko viol fekk Mamour Diallo moo orchestre affaire ba mbir mi nag nuñ ko tëggee baaxul ki nga xamante ni moom mooy gynécologue bi daal di seenu géey moom mooy déterminer ndax viol am na wala amut mu ne viol amul capitaine Touré moo yoroon enquête bi xam na ñii dañuy fen ndax ndaw si incohérence am li alxuraan di wax ne wa shahida shahidun min ahliha muy Ndeye Khady njaay ak ki nga xam ne moom mooy jëkkëram di Ibrahima Coulibaly ak maman ba di co-masseuse ba co-masseuse ba ñoom ñëpp ne ndaw si day fen waxul dëgg journaliste bu ñuy wax Babacar Touré dem def ay investigation dugg ci kër ga xam ne kër gii nii kat kenn mënu fee violer nit xale ba la mu doon fen naan dafa vierge dañ ko dee vierge yooyu yëpp gynécologue bi génnee ko sànni fële ne kii bi mu xamee góor yàgg na te moment bi mu wax na ci lañ ko viole viole boobu noonu amut amu ci benn rapport ci moment boobu noonu mu nekk lu leer nañ ñu xam ne échec nañ Ousmane ko di wuy ji ñu koj ko ci yoon bi créé beneen chef d'inculpation naan ko da def participation à une manifestation non autorisée ay waxu caaxaan daal ay trouble à l'ordre public créé sen ay fen jàpp na nag voilà légui jeex sax parce que ki bu àggee ci juge yi huitième cabinet ki 2 deuxième cabinet légui di Mamadou Seck daf koy bàyyi dañ koy téye sax jàpp ko tëj ko jaay ko doole defeere ko par force léegi amatul sax ay affaire yu viol ak yooyu suñu yoon nekku ci ba tey ñu ngi jàpp ne comme defoon nañ ko Khalifa Sall ak Karim Wade day yomb sénégalais yi génn wax Macky sàll ci boppam ne ko da ngay fen yow Macky Sall yow waxoo dëgg loolu la ko sénégalais yi wax duma ko duma yi métti gaay mi daw déserté seen kër yi mooy ñuy wër di saaga nii ci télé ñoom ñëpp dawoon bàyyi ko moom kenn mu wéet sëriñ si sauvé ko

ci Ousmane Sonko lu dul instant bi li ko dese xam na ne mënu ko tëj mais mooy yàq deram di ko. mook Antoine Diome ak Moussa Fall ak jabaru Antoine Diome baak ñoom comploteurs yu bon yëpp ne duñ bàyyi dossier bi xam nga maa xam Diallo wallahi dañ ko jàpp en notage maaxam xam dégg naa ku baax la waaye gis nga nguur moo garaaw fu mu nekk nii li muy def nii yëpp moom defeewu ko ak sagoom maanaam dañ koy manipuler gis nga Farba Ngom moo nekk ci gannaawam ak Macky Sall ak ñeneen ak ñeneen Farba Ngom moom dafa am doole moom moom moom dafa mel ni mooy vice président pour lan yàq deru Ousmane Sonko xam nga fan ngay xamee loolu. dañuy dem ba ci hémicycle bi sax di fa wax ay waxu Sweet Beauté ay Ousmane Sonko te yoonam nekku ci ba pare à chaque fois dañuy wane ne ñoom du ñu bàyyi dossier bi parce que tey am na dossier yu viol yu fi amoon Sénégal yoo xam ne gynécologue moo ko leeral bi gynécologue bi waxee ne viol amut ci lañ jël dossier bi teg ko ci suuf boo seetloo dossier bi ñi ci bokk ñep moy comploteur yi jéemu ci convoquer kenn dégg naa ñu ne convoqué woon nañ mu bañ du uy ji moom moom xam naa moom sañ moom moom comme comploteur ci Sénégal Antoine nga Mamour Diallo convoqué parce que moom mooy euh, à la tête du complot waroon na convoqué ki nga xam ne moom mooy Sidi Ahmed Mbaye benn yoon laa dégg ñu ne convoqué nañ ko ba léegi déggaatuma ko ay ñoom Gabi Sow ak ñeneen ak ñeneen ñoo xamante ni tey waroon nañ leen convoqué comme capitaine Touré mais capitaine Touré moom arrangé wu leen parce que buñ ko convoqué rek moom xam naa ne du baax ci ñoom parce que xam naa ne <coughs> toggaale na loo xamante ni bés buñ ko convoqué du leen arrangé mu nekk loo xam ne yëfu bandi la yëfu saay-saay la jàpp Ousmane Sonko ak Ndeye Khady Ndiaye mettre len sous contrôle judiciaire téye sen passeport kilifa gu tolni Ousmane Sonko nek chef de l'opposition ak notoriété bu mu am ak aura bi mu am personnalité bu mu am ci Sénégal révolutionner la scène politique sénégalaise ñu téye ko diko kal kalé hein ah passeport am interdire mu génn territoire bi jël ay nit yóbbu ci télé yi ah, ñuy saga recruter ay jigéen ñoo xam ne c'est des gonde ay góor yu ñàkk fayda góoru mbootaay di leen fay xaalis ñu koy saaga suba ngoon guddeeg bëccëg am seen ay journaliste yoo xam ne heure bu ñu defee à la une rek Ousmane Sonko la ñuy jéem a diaboliser wala di jéem a ternir image am di ko discréditer mu nekk loo xamante ni lu ñaaw la lu salte la lu bon la kon dossier bi ñu xam nañ ne sérieux wul parce que dossier viol yu mas a am Sénégal yëpp à chaque fois bu gynécologue na rapport a pas de viol mais dossier bi fa lay yem saagakatam boobu né nekkoon Paris Adja un viol récemment mais certificat médical bi a pas de viol mais après lan cause blessure volontaire un mois Cheikh ci kaso bi te ñooñu ñoo ko jiitu foofu te ñooñu jàppee wuñu leen dara lu dul liberté d'expression wax seen xalaat wax joo xam ne ki ko waxoon mooy Imaam Ndaw Imaam Ndaw génn àdduna ñu wax ne Imaam Ndaw torture yi ñu ko doon torturer kaso loolu moo ko rey ñu jàpp leen tëj leen ci kaso bi naan dañuy ubbi instruction ci loo xam ne flagrant délit la waroon a nekk xam nga lii nii dafa dafa dafa jéggi dayoo ah jàpp ñoom Ousmane Diagne tëj jàpp Papito tëj jàpp Amy Dia am nekk jigéen yore njaboot di ko jiiñ ay force espéciale yëfu ñàkk xorom yoo xam ne c'est que ñii billaahi dañoo mën a tooñ waaye billaahi wallaahi tallaahi bës a ngi ñëw ci bés yi lépp lu ngeen def ci lu ñaaw incha allah di ngeen payer les kase su ngeen jàppee ne seen nguur gi nii nekk di teg nit ñi ay jafe-jafeek di tëjaateeg di rayeeg lu ne ngeen koy def moo tax ngeen fi yàgg wallahi da ngeen di nax seen bopp Alors, xamoo euh, li ngeen di def nii da ngeen di gën a yokkal seen ay chef d'inculpation parce que di ngeen fi par force 2024 xaw bon ban président moi, talk Sénégal waaye du nek Macky Sall barke alquranul karim la la wax billahi, wallahi wa tallahi. parce que daf ci amul droit constitution bi moo ne ken mënu fee am lu ëpp trois mandats kon mom ban ma xamala am ba mën a nan day jité Sénégalais par force ci jalgati constitution ñoom ñooy ñan laay laajte ñoom ñoom ñooy ñan moo tax nag ñuy def seen yi ñuy def nii yëpp seen tëjaate yeeg seen rayaate yeeg seen intimidation yi ñuy def nit loolu yëpp moom moo ko waral ak dossier Ousmane Sonko bii nii xam nga ñu bañ na duñ ko bàyyi ci ay caaxaan ci ay fen ci ay tappale waaye daal lu ñuy xaar ci dossier bi incha allah duñ ko am luñ ci bëgg mooy traîné ko dans la boue di deram à chaque fois bu a Ousmane Sonko du viol mo leen te gis nga comploteur yëpp tay, na leen tay, comploteur yëpp le récompense. Bo Mamou Diallo def ko directeur ONAS office national de euh, l'assainissement du Sénégal jël Bassirou Gueye Ah? Abdou Mbeng mu jël ko mu remplacer Moussa Fall ci gendarmerie territoriale jël Moussa Fall mi nekkon gendarmerie territoriale jox ko place sous Jean Baptiste Tine mu nekk au commandant de la gendarmerie et directeur de la justice militaire manam kon affaire bi dafa nekkul neen te mom day ñaawal nit ñi dafa dem ba tollok sénégalais yi foo xamante Macky Sall

te bës bu ñu ko ko bëggee wanaat dañ ko koy wanaat te dañ koy dumawaat comme ni ñu ko duma woon waaye ñaanuñu yàlla àgg foofu waaye su ko bëggee tamit dinañ àgg ak moom foofu incha allah parce que ñun jàmm rek la ñuy oote. donc loolu moo tax muy ñaawal nit ñi ñi bokkoon ci complot bi yëpp mu jël leen récompenser leen jël booy sàggkat yi mu dàqoon ñoom Abdou Karim na ñoom Mame Mbaye Niang ay ñoom Malick nduur Pape Malick Ndour moom mosul nekk sax ci indi na ko parce que gis na ko ma doon saaga waaye ñaar yi nga xamante ni xam na ne ay saagakat lañ dàqoon na leen ci gouvernement bi mu indiwaat leen pour ñu gën a chargé Ousmane Sonko di jox leen ay instruction na leen da leen wax Ousmane Sonko Adji Sarr Ousmane Sonko Adji Sarr xam nga su ko defee Maham Diallo tamit ñu bàyyi ko fële euh, premier cabinet mu nekk doyen des juges moom it muy convoqué à chaque fois ñu ne convoqué nañ Ousmane Sonko di tudd Ousmane Sonko Adji Sarr journaux yi di bind di titré su ko defee Ousmane Sonko moom si lu ñu koy dégg toujours rek mooy affaire de viol lu bon loolu la Macky Sall programme mook ñëw àndal te nii lañ ko nar a jàppee nag ba 2024 waaye incha allah yàlla moo leen ëpp doole ñu ngi ñaan yàlla yàlla na leen yàlla alak yàlla na leen yàlla toroxal seen pexe yi yàlla bu mu sotti asalaamaaleykum wa rahmatullah